mais war nga respecter li nga waxanteeg citoyen bi nga fekk si déjà que suñu benn jeune gisuñu seen bopp ci projet bi du jeune HLM Patte d'Oie du jeune Grand Yoff te nit bu fekkee ne da nga waxanteeg nit ba ngeen sàmmante kàddu ku ne war nga respecter la nga wax waroo ko dépasser ndax tey dëkkuwaayu cité la dafa xat benn tali moo fi am ku nekk gis na tali bi ak Espen Park bi lii ñu fi bëgg a créer ni la en Afrique moo fi moom moom rek moo fi am fii dakaar en Afrique fii rek la am ci Sénégal xanaa ku tukkiwul wala seetaanoo tele loolu ñi fi nekkoon ñoom ñoo ko nangu tey nag suñu njaboot suñu ay ñun dëkkuwaay yi bu ñu jógee ñu ne ñu dañuy xeex pour lan ci dëgg pour ci suñu dund suñu environnement ci suñu nekkin ak ci suñu cité pour ñu nekk ci jàmm am dund bu sell mën a nelaw ci jàmm booleeg yàqu-yàqu yi tey am ci dëkk bi dañ ciy jug nag ànd ceeg ñoom ndax ñun amuñu lu dul suñu njaboot ah ku dëkk ci cité depuis 74 bañ fiy dëkk lii yëpp dara amu fi du ah HLM Grand Yoff du dara ah ba tey li yëpp fekk la fi lu baax danga koy nangu ci lu la amal njëriñ mais lu la amalul njëriñ nag danga koy rejeté dama yaakaar ne lii yëpp mën nañ ko dox ci jàmm waxtaane ko ci jàmm am ko ci déggoo mais nag ña nga fekk si ci seen dëkkuwaay nag ca la leen neex ndax xale yi tey dañoo taxawaay taxawaay boo xam ne nag fi ne nii nag dootuñu bàyyee ci cité bi ku ñëw rek war a def yaa ma neex nu la neexee déedéet loolu moom day jeex dootul nekk te ñun duñ ko nangu loolu daal la ñu amoon luñ ciy wax la ñu waxante woon ñun defuñu ko ba pare bëgg jël yeneen espace